salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi siyaarat waa daayira xidma muxaddamata xidma bépp di tàmbale ci siyaar bi sëriñ Muntaxa Basiru ak sëriñ moo Moodu mu Menda Fall xalifa Baay Fall yi di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi lool seen taxawaay di siyaarat waa muxaddamatul ma bii nga xam ne ñoom leen seqal liggéey bi di santaat yàlla bu baax ci fekke gi nga xam ne fekkaat nañ ko negi nii ren te daaw ñu fekkoon ko comme niit ren di ñu fekkaat ko di ñaan yàlla yàlla nañ ko gën a fekk ay ati ati at kenn bañ cee manqué di santaar bu baax ci taxawaay bi nga xam ne amel nañ ko ñun ak ñoom mu mel ne euh, day jëf ju rafet joo xam ne nii euh, seq nañ ko ak ñoom ndax weeru koor jot ngay teral ay doomu aadama di leen jox ay ndogu sa xel daj na daj ñu nga wooñu ñu invité ñu fii tey loolu mu ab cër boo xam ne yàlla moo ko dogal ci suñu diggante ñoom diggante bi nag li ko sabab lépp mooy ay ndaw lay jug fas yéenee taxaw di liggéey seen Tuubaa ci dëkk bi. mooy ministres yi nga xam ñoo dajaloo boole seenu fukk ak seenu ñaar fukk tajale ko ñu dem ci sëriñ bi fóot fóotu mu tudd daayira xidmatul xaddim li ko tax jur nag mooy entretien kër sëñ Touba yi ak jumaay Touba yi loolu mooy cëslaayu liggéey bi. loolu nag bokk na ci li nga xam ne moo ñu indi fii tey jii mooy taxawaaye liggéey yi nga xam ne mooy ne ci jumaa yi di am loolu it bokk ci li nga xam ne mooy sabab bi kon euh, li nga xam ne moom lañ ci dolliwaat rek mooy. am nañ liggéey yoo xam ne tàmbaloon nañ ko ci bi ñuy waaj koor mooy li mel ne baas yi nga xam ne moom mooy fii ñuy toog ci ajuma ji yàlla dogaloon na ñu tàmbaloon ko doon ko liggéey bi yàlla defee ñu jub koor gi ci leen ko arrêté woon waaye amaat nañ yéene yi bu koor gi jàll ak jàmm ñu mën a wéyalaat liggéey yëpp ñu ko doon def joxe waaye yéene ji daal mooy suñu digganteeg jumaa ji lañ bëgg muy wëy te it ñaan nañ yàlla yit lépp loo xam ne ayib na fi loo xam ne suñu liggéey la fas nañ yéene taxaw seetu loolu ba loolu féete boor daayira bi it ab taxawaayam mooy euh, entretien kër sëñ tubaay yi tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ñi ma àndal ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi ñuy bokk ci bureau bi ak ñi bokk ci daayira bi yëpp ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bu baax a baax seen taxawaay taxawaay bi ñu fi taxawee nag taxawaayu xidmatul xaddim gépp lañ fi taxawee am nañ ay kilifa yoo xam ne ñoom lañ seqal liggéey mi suñuy waajur ma ñuy jàngal métier ñoom it da di mbooloo bu kenn teewee rek teewal ñëpp kon suñ teewaay bi mooy teewal ñooñu kon ñoom it ñoo ngi ñaan liggéey bi nga xam ne bokk nañ ko ak ñun ñoom di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewe ay ati ati ati at te liggéey bii nekk suñu jaamu yàlla goo xam ne ne lépp lu ñu bëgg ci coow yoon wi Sëñ Tuubaa fi leen kame loolu daal bokk na ci li nga xam ne fas nañ ko yéene ànd ak yéen di santaat waa jumaa ji bu baax nag tàmbalee ko ci sëñ Fallou Mbacke bi nga xam ne moom lañu fekk ci jumaa ji ak sëñ Jili ak sëñ Abdoulaat ñoom it wax dëgg yàlla ñuy nit ñu jàppale lool nit ñu fonk lool te it dëgg yàlla lépp loo xam ne am nañ jafe ci biir lu ci mën a xew bala ñëw ak kenn dee ñu woo nañu lii leen bëgg nangam nangam yaatal nañu ci jumaa ji lool xatal luñu ci dara lépp lu ñu bëgg loo xam ne lu ñuy jëmale liggéey bi kanam la muy lu ñuy soxla luñ ci mën daañ ci taxawee loolu it leen ci jaajëfal bu baax ndax mënoon nañu jumaa ji ñu xatal ñu jumaa ji waaye xataluñ ñu buñ ñëwee jumaa ji lépp loo xam ne soxla nañ ko ci jumtukaay ak lu mu na doon daañ ci taxaw ba mot sëkk kon loolu euh, daare bi mu ngi leen ciy santaat bu baax a baax di ñaan yàlla yéen taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi yàlla gën a taxaw ba nii ngeen koy taxawoo yàlla di def ngeen taxaw ay téeméer at atat te kenn bañ cee manqué waaye taxawaay moo am na solo lool waxtaan wi ñu fekk ci biir it mel na ne lu jëm ci université bi la loolu it mel na ne njëriñul murit yëpp la ndax sëñ Muntaxa jëf jëm jëfee mel na ne Sénégal mel na ne àdduna la ko defal mel na ne àdduna la lépp te kenn ku ne am nga fa waay kon nañ ñaan yàlla naal yim naal yàlla na yàlla may mu def ko muy muy muy karaama sëñ bi yàlla def ko mooy karaama goo xam ne nii day fekke naal yëpp yàggal ko fi lool ba lépp lu mu bëggal liggéey ci suñ Sëñ Tuubaa bi suñ borom tabb ko kattan ak wér fekk ba mën a fekkee lépp ñoo ngi ziyaare ñëpp di balwaaq ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah